dëxin ñëwati na mbay dëxin ñëwati na yàlla fa tax ba tax ndax balax mbaxin may ma dëxin mbay dëxin ñëwati na yàlla gi ndax ñëwati na man damay tax ma tax ñëwati na yàlla gi ndax ñëwati na may ma taat bàyyi ngàpp taat ñëwati na rëcax ba cax yàlla ma lax yàlla tax ci git di mbax rambax tax tax ci dëxin wala mbay dëxin wéqit taat jin ko ndax waaw wayal ma benn waay